équipe bu Real Madrid bi àgg nan euh, fële nga xam ne moo nekk Arabie Saoudi te it danañ entraîné nag suba ak jàmm bu 18h pile pile jotee danañ ci dikk fële ca terrain ba nga xam ne Cristiano Ronaldo ak ñancoo international euh, goney Madrid yi ñoo leen di wutu foofee ginnaaw bu ñu leen digloo yëgle bu am solo bi Serigne Fallou Mbacke nekk fële ca Ndakaaru di ko toj tasar yëgle boobee am na solo bu baax a baax ñu dellusiwaat toj xibaar yi. alimentation générale waa kër Serigne Moussa Noël nga xam ni loolee buñ ko waxee général mboole seen am nañ ko foofee ci suñu place grossiste nag daanaka lañ ciy jaay demi goro ba détail boo bëggee ñu dabar ñi la li ñu njëkkee nag mooy bagage yi nga xam ne mooy plastique lu jëm ci li meeg ay kudd palaat gaa yi nga xam ne ñoo am ay programme yoo xam ne bëgg nañ palaat yu rexe-rexee ba ci ay sachet yoo xam ne lépp loo bëgg nga bëgg ko cee dabar ñi mën nga ko cee def suñu tamit daanaka mos a jeex foofee euh, ceeb ordinaire euh, ceeb parfumé ak euh, ceeb brisé ak bi nga xam ne mooy ceeb bu dijj bi façon ceeb bu ne moom it bu ngeen ñëwee ci suñu engrais danañ leen ko fa defal ñu ngi marché HLM 4 marché HLM 5 ba fële ca Diourbel di ñetti place yoo xam ne daanaka ngir bëgg a def seen bànneex seen bànneex nag moo tax ci Coupe d'Afrique bi ñu bëgg cee ànd ak ñoom ci bagage yi nga xam ne yu yomb la bu ko defee dara du ngeen ko manqué ma nga noonee kanet yi soble ak pomme lu jëm wàllu benn gara xeetu général daal lépp loo xam ne bëgg ngeen ko ci suñu place bu ngeen wootee ci ñetti numéro yooyu fu ngeen xar mu suur maanaam jur gi nga xam ne uh, fàttewul leen mélange ak lépp loo xam ne jëm na ci dugub ak li nga xam ne mooy bësi ak mélange bu mu di doon uh, bu dul bu jinne am na ci suñu place numéro yaa ngoogu stock ba nag uh, dara du fa jeex beneen bi mooy sase café yi nga xam ne moo nar a tukkal adduna café gaa nga fa sase yaa nga fa bépp xeetu sase mu ngeen bëgg tamit bu ngeen ñëwee ñu dabbar ñil leen ko ngeen mën koo teg ci temps ak heure ngoogu ñi ngi marché HLM 4 marché HLM 5 bu ngeen wootee lépp taw xibaar yaa ngoogee équipe bi la di wala équipe bi la nga xam ne mooy Al fii mu tool nii doonatul équipe bi nga xam ni moo gën a xarañ fële ca Arabie Saoudite li ko wër am na équipe bu ko fa wuutu diggante Real Madrid diggante ba mu fay nekk ba ba mu fay jógee moom mais moo yor cëggal gu yam ndax mooy équipe bi daq dàqa football foofee ni nu ko mën a waxee nag ay tooñ la ci biir rek ndax loole loolee sëmbaxal la gone yi àgg nan ñu ngi noonee Brahim Diaz ak ñi mu àndal ñoom ñëpp wàcc nañ foofee ca aérodrome yi nga xam ne ñoo nekk fële ca Arabie àgg ga nag daa fekk ay supporters di leen fa teeloo cofeel nag la Luka Modric mi jiite délégation boobee ndax bokk na ci ne ca mag mook Toni Kroos délégation boobee am solo bu baax a baax ñu wàcce seen i saak danañu noppalu tey ji nag duñ def dara ñu nàndal leen dëkk bi jox leen ay euh, wasag yooyee ñu naan daal di reer ba suur nag bu ko defee buñ xëyee euh, ndéego gu ndaandaat ci dëkk ba 18 heures pile nag ñu ànd ak Florentino Pérez ak président ba dem ci centre bii ñuy gis bii nga xam ne daanaka fi la Cristiano di entraîner ak Sadio maane international sénégalais bi ñoom ñëpp ngeen gis leen noonu ci seen taxawaay ban fay amee loolee daanaka mu am solo bu baax a baax kon ñu jàppe ko noonee entraînement ba 18 heures la suba incha allah danañ ci ñëwaat lu yaatoo yaatu eh, ci boobee entraînement waaye stade maître Abdoulaye Wade wëyëng la defoon ci match bi nga xam ne sans Sadio Mané san supporters yoo xam ne sax mën na noo yuuxoo ba équipe bi gagné loole nag du mu bett kenn ndax équipe bi taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci match bi loolee buñ fa balaatoon beneen match suba tamit daanaka loolee gën a wéet ndax taxawaay ak dangar ji gaa ñi doon xaar loolee andiwul amour bi ñu am ci équipe nationale lan moo koy yokk doole joojee mooy gone yi gën am taxawaay ñu gërëm leen sant leen jaa ngeen jëf ci kanam tuuti kontaan naa ci yéen yeneen information dinañ ko indiwaat